tey euh, par rapport ak point du jour d'aujourd'hui euh, Moustapha jàpp naa ne lu ci mhm. gën a nemmeeku rek moo nekk trois décès yooyu nga xam ne am nañ ko démb ci euh, mardi bi mu porté le nombre à soixante-treize mu mel ni fu mu toll nii maladie bi mun nañoo jàpp ne ñu ngi si plateau bi ñuy naan pic mais dafa mel ni fu mu toll nii décès yi moom ñu ngi gën di yokk alors euh, dafa mel ne warul bett kenn également parce que su fekkee ne euh, ñi nga xam ne ñooy médecins yi liggéey ci wàllu woowu waxoon nañ depuis le début que ne su cas yi yokkee. ay cas grave dina yokk te bu cas grave yi yokkee naturellement ay décès dina yokk je crois que ci loolu lañ nekk li ñu mën a souhaiter kay mooy mu nekk exactement li nga wax muy pic te pic boobu ñu bañ ci yàgg parce que ñu ci yàggee du baax ndax ñuy wax wax ci wàllu wëpp li ma dégg ñuy wax mooy maladie bi moom épidemie yi mook épidémie yëpp am yam day départ dem euh, atteindre am après mu commencé wàcc li ñuy souhaiter kay mooy bañ a yàgg foofu que mu wàcc très rapidement mais ak ni nga xam ne noonu la mbir yi di doxee ni ma gisee nii suñu deful ndànk dana fa yàgg pourquoi parce que man j'ai l'impression que ni les sénégalais de plus en plus ils sont passés à autre chose c'est-à-dire que ñoom mbirum coronavirus nekkatul seen préoccupation de tous les jours ñi ngi ci leneen loolu nag il appartient au gouvernement de voir comment est-ce qu'on régler cette situation la que les sénégalais reprennent progressivement seen ay activités mais également ñu fexe ba ñu bañ a fàtte ne maladie bi mi ngi fi ba léegi te day fàtt te li nga xam ne moom la boroom xam-xam di wax ku mel ne professeur par exemple moo di ne ñun ñëpp ñi nga xam ne ay ndaw lañ peut-être euh, on est en bonne santé wala on croit qu'on en bonne santé euh, ñun feebar bi mën nañu dal romb ñu dem duñ ko sax yëg mais le danger bi nga xam ne moom la représenté pour ku nekk ci ñun moo di ne soo demee seen kër soo demee suñu kër keneen bu demee këram dina fa fekk maamam am na ñun am nañ ay maam am nañ ay papa yoo xam ne xaw nañoo xam ne ko peut-être xam nañ ko su fekkee ne feebar daf la dal fekk la ca yow mën na la bañ a sonal mais man nga ko wàll koo xam ne dafa yore woon feebar wala bu màgget soo deful daal mu faat ko je crois que communication bi foofu lañ ko war a accès dorénavant. Mm-hmm. Euh, sànq population. est boobu rek nekkul dernière sortie nga xam ne président de la république euh, Macky Sall def na ko muy parler d'assouplissement de mesures. xam nga relâchement bi man. bettuma en tout cas pourquoi parce que bi ñuy annoncé assouplissement man waxoon naa ne il faut que ñu insister surtout sur la communication et sur la nécessité mm-hmm. que ni assouplissement ne veut pas dire relâchement mais wax naa ko ci benn yoon ma ne bu fekkee ne dañu gis ñu mel ne France ñu ne par exemple il faut apprendre à vivre avec la maladie loolu soo ko waxee tubaab am na lu mu koy déggee mais soo ñëwee ci sénégalais nga ne ko il faut apprendre à vivre avec la maladie wala nga ne ko euh, traduire ko ci wolof ne léegi nañu il faut ñu fexe dëkk ak feebar bi mais njàpp yow ki ngay dëkkal mooy ki nga xam da nga ki ngay dëkkal mooy ki nga ne ragaloo ko donc à partir de là les sénégalais se disent que donc su fekkee ne nguur gi mi ngi naan nañu fexe dëkk ak maladie bi ça veut dire que ni c'est pas très grave si c'était pas si c'est très ñu bàyyi ne nañ dëkk ak moom loolu moo jur relâchement te relâchement boobu tey moom ngay gis ci transport public yi moom ngay gis ci euh, fi mbooloo yi dajee soo demee ci plage yi tey or man dama yaakaar ne tey su fekkee ne mënoon nañu fexe ba ne par exemple dem marché mënul ñàkk ñu ne nit ñi nañ marché mais nañ ko organiser ne par exemple euh, dem jumaa na ci ñu bari mënul ñàkk dem jël transport en commun mënul ñàkk ñu ne nañ ko organiser mais dem plage bu ko sa kër mais malheureusement tey tourner ci plage Dakar yi tu as l'impression que nit ñi dañ doon xaar ñu ne pipe rek ku nekk dawandoo wuti géej et d'ailleurs ça cause des dégâts parce que yaa ngi dégg combien de personnes ñoom ñooy lab ci géej fan yi ñu nekk mm-hmm. assouplir euh, Euh, def euh, dogal na ko mais dañoo gis ne aussi amul euh, des mesures d'accompagnement parce que ñoom annoncé woon ne huit millions de de masques pour la population mais gis mm-hmm. nañ ne ba tey huit millions yooyu sa tarde à se concrétiser mais est-ce que mënuñoo aussi si cas coronavirus bi président de la république ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk xeex bi dañ see def échec à part les médecins non man pour man c'est un échec je l'ai dit et je répète c'est échec te dinaa la jox lan moo tax ma yaakaar parce que suñu comparer Sénégal ak réew mel ne France réew mel ni Allemagne réew mel ni États-Unis dañ naan ñoo ñëpp doole mais bu ñu comparer Sénégal ak réew mu mel ne ab euh, Côte d'Ivoire mi réew mu mel ne Bénin wala sax Burkina Faso wala Mauritanie exactement da ngay rendre compte finalement que ni est-ce que ñun war li ñu waroon def def nañ ko benn mooy bi feebar bi duggee ñun Moustapha Diakhaté mi ngi wax démb dama d'accord ak moom ñun bokk nañ ci réew yi nga xam ne ñoo njëkk a corona bokk nañ ci réew yi nga xam ne ñoo waroon njëkk a préparé wu pourquoi parce que bi corona amee Chine dafa fekk ay doomu Sénégal yoo xam ne ñoom nga ci dëkk ba amee ñu bëgg a ñibbi si réew mi président de la République ne non mënta que amul les moyens pour andi leen te ku xam àdduna ni muy doxee xam Chine li mu représenté si économique àdduna xam ñaata nit ñooy déplacé wu di dem Chine tous les jours war nga xam ñaata sénégalais ñooy jóge Sénégal tous les jours dem Chine waroon nañ déjà préparé wu ne lii mën na ñëw ñëwul graw affaire bi jugee Chine dem Europe ñëpp xam nañ ne diggante itali Sénégal Italie euh, Sénégal France vraiment c'est des vols hebdomadaires yoo xam ne li mu indi ci ay nit di leen yóbbu kenn xamu toll donc bu ñu ko déggee France dégg ko Italie rek waroon nañu xam ne suñu réew mi la jëm à ce à ce moment là je crois que am na sax ay médecins yu ko wax ne ci lañ waroon a jëlee les dispositions qu'il faut ne ku ñëwati ci réew mi la première chose mooy dinañ la tester bu fekkee ne mënuñu tëj frontière laa wax parce que tëj ko moo gën mais à que on est un pays pauvre lu bari ci extérieur lay jóge donc bu ñu tëjul frontière également ñu fexe bay dugg di contesté su fekkee ne daf ci am koo xam ne dañu yaakaar ne euh, dafa représenter un danger maanaam maladie bi mi ngi ci moom ak yooyu ñu jël ko isolé ko et cetera et cetera on n'a pas sax ça ba premier cas am au Sénégal ñu doog a commencé na léegi il faut ñu tëj frontières yi commencé tëj euh, def lii def lii ñu dem ba gis ne Sénégal njàpp loo xam xam loo ñàkk xam-xam Sénégal xam ne Sénégal ñaari dëkk fi nekk yoo xam ne dara mënul xew Sénégal épargne leen muy Ndakaaru ak Touba lan moo tax parce que ëpp ci sénégalais yi Ndakaar lañ nekk ak Touba la densité démographique bi nekk Touba ak bi nekk Dakar war na la xamal ak loo gàtt gàtt am xel ne su fekkee ne feebar am na ci réew mi mënul épargne ñaari dëkk yooyu boole ceeg ñaari dëkk yoo xam ne c'est des villes commerçantes Dakar comme comme Touba cela veut dire ni. ñiy déplacé wu di jóge Touba dem ci yeneen dëkk ñiy déplacé wu di jóge dakaar dem ci yeneen dëkk tous les jours mënoo ko wàññi c'est pas pour rien que ñu def autoroute Ila Ila Touba et on a pas on n'a pas fait autoroute Ila Thiès ou Ila Kaolack xam nañ ne liy dem Touba di ñëw Dakar mu ëpp par jour ak fu mu mënti doon Sénégal à partir de instant là su fekkee ne feebar bi am na Touba am na dakaar mais li gën a simple mooy fexe woon ba ak noo ko defee nag ba waa Touba dootuñu soxla di génn. fexe woon ba waa Ndakaaru dootuñu soxla di génn ñiy jugee ci yeneen régions yi ñu fexe ba seen dugg bu budul lu ko jar dëgg dëgg dëgg ñu bañ fee dugg mais ça on l'a pas ñu toog seetaat nit ñi di dem di dikk dem di dikk ba maladie bi commencé di tas di tas di tas ñu commencé imposer nit ñi ay mesures mooy d'abord couvre-feu état d'urgence nit ñi seen bopp di dem ci couvre-feu vingt heures six heures du matin njàpp soo imaginer man mi nga xam ne dama amoon euh, autorisation pour circuler à Dakar la nuit soo imaginer difficulté yi nit ñi nekk la nuit à Dakar day d'abord difficulté pour mën a tëdd parce que Dakar du ñëpp am fu ñu tëdd deuxièmement difficulté pour ku feebar dal guddi nga sonn man plusieurs fois daw naa guddi daje diggante Guédiawaye Cambérène yooyu demee noonu ay jigéenu wérul yoo xam ne ñi ngi sonn sonn goo xam ne amuñu lu leen yóbbu. dañu ay mesures te prendre exactement suñu da ngay man man gis naa gis naa benn soxna boo xam ne ànd ak borom këram. Mhm. dama maa ngi ki koy tooñ naan ko kii bu deful nag dina am du yoon dana am doom ci ci tali parce que diggante bi muy doxee pour gis fa alkaati yi nekk parce que alkaati rek ñoo la mën a sauver guddi gi yi gis ko man koo yóbbu wala ñu woolu ko jël si c' est tout problème nit ñi dund loolu lu mat weer loolu ñu jóge ci loolu ñu ne dañuy dàbbaliwaat couvre-feu bi il a fallu que ku mel ne Ahmed Khalifa Niass dem palais pour que ñuy doog annoncé ne dañ koy yéege ba 22h après ñu ne ba 21h mais attends les Sénégalais qui voient tout ça et qui se mais malgré tout malgré tout ce qu'on nous demande de faire on est en de faire mais maladie bi reculé wul comme reculé wul nag bala ñuy maladie bi euh, bala ñuy dee suñu biir kër yi ndax xiif ndax feebar mënoo faju ji mieux vaut ñu génn corona rey bu fekk daf ñu rey loolu moo taxoon nga gis les premières révoltes loolu moo taxoon nga gis ñi nga xam ne dañu bëggoon a julli ji juma bëgg a dem jàkk mënatuñ ko mm. ñu toog parce que man j'ai dit tout le temps depuis i début que il faut que le pouvoir fexe réconcilier ñaari ñaari position mooy ñi nga xam ne comme Moustapha Diop ak xëy na tubaab la ñu jàng tubaab la ñu xam ñoom dañu yaakaar ne coronavirus benn maladie la comme toutes les autres maladies nañ ko xeex ni ñu xeexee maladie yëpp jëlee ko ak ñi nga xam ne ñoom dañoo gëm ne coronavirus dëgg la maladie la mais yàllaa ko yónni dégg nga ju bari sénégalais ñu naan mbindaa fi nu yàlla la li ñu gëm mooy il faut que ñu dem ci jàkka il faut ñu ñaan il faut que ñu alxuraan il faut que ñu jéggalu yàlla mais il faut que un état fexe ba ñaar yooyu nga leen boole ñu mën di ànd et comme on l'a fait les débuts de révolte commencé ñu assouplir assouplir li mu jur mooy relâchement bi nga wax. Mhm. Euh, début de révolte yooyu laa bëgg sax ñu dugg euh, Moustapha nga xam ne ba ñu commencé rek boo tendre sa micro da dégg population bi ñu ne la carrément ñoo ils n'ont plus rien manger dañoo xiif. Mhm. ñu gis ne euh, affaire bi mën na ne alimentaire ñu gis ne alimentaire boo aussi benn ko commencé rek bëri na ay euh, coow yu si nekk wàllum transparence bi si wàllum euh, mhm. marché yeeg gis nga coow lu si amoon avec Diop si de suite ñu gis le ministre bu yor wàllum euh, dund bi mhm. mu nekk kii di nga xam ne mooy Mansour fay génn na def benn aveu d'échec par rapport ak ñi nga xam ne ñoo waroon jotee si mbir mi ban jàngat nga amee si loolu gis nga mbirum ceeb bi bokk na ci li perturbé mhm. stratégie bi ñu tegoon pour xeex coronavirus. parce que bul fàttali bi président Macky Sall njëkkee wax ci mbir mi dafa recevoir après les principaux ténors de l'opposition recevoir d'autres personnalités du pays waxtaan ak presse bi. waxtaan ak euh, seen syndicat yi ba ñëpp ne léegi urgence su Sénégal nekkatul lenn lu jële fi coronavirus loolu moo tax nga daan gis la presse par exemple pendant ce temps-là dafa mel ne woon une presse d'accompagnement ni ma koy tuddee souvent on préfère donner la parole à ku mel ne docteur Aloïse ku mel ne professeur Seydi le ministre de la santé ñoom ñu wax ñu yem fa la presse ne faisait que ça il y avait pas un autre travail bu journaliste def ay même tu tu entres dans les rédactions les gens du coronavirus ñuy dem ba ci biir mbirum ceeb bi dugg man demee naa ne bi mbirum ceeb bi duggee fi la rupture bi amee parce que la première erreur mooy ci wàllu nu ñu jëndee ceeb fan lañ ko waroon jëndee kañ lañ ko jënd deuxième erreur transport bi foofu fi la bi commencé nga gis sénégalais yi di commencé di diviser wu nga gis l'opposition également commencé di reprendre ses positions d'avant nga gis les activistes commencé di dénoncer ce qui s'est passé te loolu mënoon na ñàkk li tax ma ne mënoon na ñàkk mooy maa ngi lay wax sànq soo nee France wala États-Unis ñu ne yemuñu doole mais Côte d'Ivoire bi fa corona bi commencé lan la euh, Alassane Ouattara dox daf ne le grand Abidjan xam naa mooy grand Dakar comme fii fa la corona bi ëppee doole mu ne il faut que ñu fexe contenir ko foofu nan lañ koy contenir mu ne fexe ba les populations yi nga xam ne ñoom ñoo nekk dans le grand Abidjan ñu fexe ba ñu bañee ñu déplacé wuti ci lañ jëlee li ñuy def seen mobile money yooyu mooy jël xaalis xam naa Sénégal gi je veux pas faire de pub mais xam nañ ko mm-hmm. jël ko envoyé xaalis ñi nga xam ne ñoom ñoo ko soxla ñu envoyé Sénégal combien de fois wax nañ le président Macky ne ko xaalis bii bu ñu jëlee ñi nga xam ne ñoo ko soxla ñu trouver un système qui permet envoyé leen xaalis boroom kër gu nekk jot xaalis def ci poosam mën na am mu toog këram parce que xelam dina dal pendant un mois deux mois pour mën a régler ses problèmes ñu ne non defuñu loolu li ñuy def mooy jënd ceeb njàpp comment peux-tu comprendre ñu ne la aide alimentaire d'urgence urgence mooy ñu ne diw mu ngi ci teen bi ñu ne nañ ko fa jëlee balay dee urgence kañ lañ ko waxoon ça ça fait bientôt trois mois le ministre Mansour Faye avait dit en quinze jours dina acheminer ñi ko war a jot yëpp jot ko maa la waatal ne man bi may ñëw fii léegi bi may ñëw fii léegi fii laa romb Ouest Foire ci case des tout-petits bi ay nit ñuy rang pour jël aide alimentaire d'urgence fii léegi léegi ça fait même pas li ma la wax que bi ma fi duggee léegi yàggul donc ba tey ji nit ñi di rang démb j'ai regardé sur une de télé ay jigéen ci quartier montagne bu Louga ñuy génn ci mbedd bi di manifester ne ñoom dañ leen jox ay bon ba léegi ñi ngi xaar aide gis ñu aide ça veut dire que le ministre a échoué et quand on échoue on passe à ñu defi leneen mais tey mënuñu ne aide parce que aide alimentaire d'urgence lan moo ko taxoon a jóg njàpp mooy pour que nit ñi toog seen kër tey jii ñu ngi koy séddale nit ñi assouplir na leen assouplir euh, restriction yi pour que nit ñi mën a génn comme nit ñaa ngi génn di joxe seen activité di dem di liggéey di wuti lu ñu dundale seen njaboot mais nañ ci yàlla ci leneen le ministre n'a qu'à passer à autre chose ou bien il démissionne tey jii sénégalais yi bu ñu toogoon di xaar aide alimentaire d'urgence kam moo leen dundal au-delà de euh, l'échec bi nga xam ne yan koy euh, souligner mais l'image du Sénégal dans tout ça parce que boo xoolee image yi tu l'impression que. si dëkk bu xiif lañ nekk. mais c'est vrai man dafa am sama benn nijaay bu ma woowee luga parce que man fa laa dëkk mu ne ma hmm. euh, dafa am gàcce ma ne ko tax mu ne ma tey dëkk bi fan yi waxuñu luul dul ceeb. ça me rappelle l'Éthiopie des années quatre-vingt nga xam ne ñëpp dañu ñëpp naa Sénégal daan Éthiopie dañu xiif ñuy jël ay ceeb di leen ko sànni ñuy daw di xëccoo Sénégal foofu lañ toll et je pense qu'on aurait dû nous épargner parce que quelle que soit la crise lu mu metti metti am ñu soxla mm. peut-être ñëpp meluñu comme waa ndakaaru wala boog certains privilégiés de am na ñoo xam ne ñu ngi ne ci biir ndakaaru nekk ci biir réew mi soxla nañu dund mais dara gënul def ko ci sutura te sutura bokkoon na ci tey di envoyer ay xaalis et pourtant loolu système boobu la